woote bi nag nga xamante ni mooy cent trente et un appel mooy woote bi nga xamante ni al mahdiyu bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam moom la woote fii ci jamono ñu koy màggal ci bis bi daanaka depuis démb moom la ñu yàlla may ñu fekkewaat ko di ci sant yàlla bu baax di ci sant yàlla bu baax ndax yàlla ku mu namul fay du la liggéeyloo te liggéey bi ñuy liggéey fii ñu ngi ciy sant yàlla bu baax alhamdulilahi rabil alamin alaaji maan d'abord taalibe la ab jaam yàlla boo xamante la yàlla daf ko cërale baaxe la ko mu juddu ci diine Seydina Limaamu Laahi alayhi salaatu wasalaam itam yàlla may ma ma fekkee loolu fekk samay mag ak samay kilifa ki ma dugal ci liggéey bi nag ñu ngi koy wax Seydina Issa Laye ñu koy wax Seydi Canal boobu fekk na gëj na ñu nekk ndaw daanaka fi ñu toll nii ñu ngi ci euh, vingt deuxième année boo xamante ni ngi ci production appel suñu rôle nag ci appel bi mooy d' abord li nga xamante ni ndigalu kilifa yi ñi nga groupement central ak groupe bâche ak kilifa yëpp yi nga xam ne ñoo nekk ci organisation yi. waxtu wi nag ñu ngi waajal bés bi nga xam ne mooy bi suba ci yor-yor gi donc moment bi di branché sonorisation bi sonorisation nag boo ko déggee mooy lépp ci biir tente bi la. ak signal sonore bi nga xam ne moom la ñuy jox télévision yëpp pour ñuy mën a diffuser appel bi ci monde bi di ko jox itam ñi nekk ci internet donc ñun suñu liggéey ci appel bi mooy fexe ba nga xamante ni euh, dégg yi ak dégg-dégg bi ci tant bi ak lu weesu tant bi jëm ci àdduna bi ci ñi nekk ci télévision ak internet ñu mën leen jox lu baax ci qualité bu baax loolu daal mooy suñu liggéey. <laughs> daanaka nit ki dafa am loo xamante ni bu jiitoo ci yow nekk ci yow muy euh, ab taalibe. waaw ala kulli haal nag boo bokkee fenn foo xamante ni yàlla cëre na la ñu wóolu la jox la liggéey da ci sant yàlla loolu rek lañ ci duñ ci leneen donc euh, ci li may liggéey yàlla def na may jël ci li may liggéey ci sama xam sama kàttan ci sama am-am di ko jaamoo yàlla ci diine ji loolu rek la dëppoo amul leneen te li ñu fi def daanaka mën nañu wax ne moo gën a tuuti sax li nga xam ne jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo nekk ci tante bi di tante tante yu tedd yi muy groupe bâche ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey xëy na su may wax nii sax waxaluma sama bopp damay waxal ñi nga xam ne ñëpp maa ngi ko maa ngi bokk ak ñoom liggéey bi muy ñi yollu wàllu électricité bi ñi wàllu wàllu transport ñi même manutention yi ak ñi nga xamante ni nag mooy soxna yi nga xam ne dañuy dañuy dimbali ci wàllu ñam yeeg lekk yi donc organisation bi noonu la demee Alaaji Maan du ci dara Alaaji Maan dafa bokk ci benn chaîne de taalibe yoo xam ni général Baye Ndiin Thiaw moom moo leen di commandé te Baye Ndiin mi ngi doxal lépp lu nga xam ne mooy xalifatul muslimin muy Chérif Baye Abdoulaye Thiaw yàlla na ko fi yàlla bàyyi ci kanam kanam may ko wér di ci sant yàlla bu fekkee dañuy xayma at yi nga xamante ni jox nañ ñu responsable ci tante bi ñu yor sonorisation def na 22 ans ci ren 22 ans ci ren yàlla dimbali ñu ñuy jaamu yàlla ci lii waaye lu jiitu loolu ñu nekk ay tuut tànk aussi ñu ngi woon ci diine ji di def suñu kéemtalaay kàttan comme ni ma ko waxee sànq li tax ñu yegg si ki yoroon liggéey bi muy Seydina Issa Laye Diop ñu koy wax Seydi kanaal moo ñu fekkoon ñu gën a nekk ndaw ñu am yéene bokk ci liggéey bi mu yaatal ñu ba tey ñu dénk ñu ay responsabilité ñu nekk di liggéey ak équipe opérationnelle boobu donc mën nañu wax ni def na 22 ans bépp tarixa ak fépp mën ci bokk ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngay yeewoo fii maa ngi leen ñaanal ñu nekk ci jàmm ak salaam bu ko weesoo di leen wax ni Seydina Limaamu Laahi alayhi salaatu wa salaam moom mooy Seydil Awalin tey mooy Seydil Axirin ku nekk nag na ko dégg xam ni bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam moo ne aaji boo daayallaahi yaa mahcharal insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum loolu nag du suñu kàddu kàddu yonentab yàlla gi ñu ñëw gëm si ko maa ngi euh, bokk ak waa Sénégal kàddu woote gi ne leen nag ña ngay invité ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi bis bi sa bis la yaatal nañu la ci ñu ngi lay wax euh, marhaban bikum ñi ngi leen di xaar fii ci jàmmalaay jàmmalaay bii nga xam ne fii la jàmmub yàlla nekk